mbégte di leen dalal fii seen chaîne ñu ngi lay nuyu de waa dakaar People awa ah, people awa people eh, di ñaanal site bi itam yàlla barkeel ko li ngeen ci yéen yëpp yàlla defal leen ko jërëjëf. waaw Oustaz suñu première question nekkul question témoignage waaw xam nga man yéex naa ko yëg màbba woona ma ñu bëri oo ma pour doon ma wax njaay doos dafa nelaw fekk na man dama doon nelaw parce que su ma nelaw bëccëg moo ci ëpp te bu téléphone yi sonné duma ko jël bi ma paree laa gis Maba woo ma ak ñeneen woo ma bi ma gisee appel yi bari laa xaw jaaxle lu xew ñu may woo ci laa toog tuuti Aziz Càndum defe naa oom oo ma jot ma bi ma jotee mu ne ma waaye yow Njaay Doos dafa nelaw ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko liy tax ma gis numéro ñoom Maba euh, mu nekkit njaay di ku baax di ku am solo ci wetu bugaan ku am solo it ci liggéeyam ku nit ñi nawoo nit ci jàkkaarloom moo xam ci politik la moo xam ci këru diine yi la moo xam ku mu mën a dajeel da nga yëg ne njaay mat na journaliste parce que nit dana dana jàng dara te du mat loola moom jàng na ko mat na ko du la xas waaye du la bàyyi nag il faut mu dem ak yow ndax loolu maye xam-xam nit ki da koy tànc su dee boroom xam-xam la dana yow dana yulli su dee du boroom xam-xam mu mer nga ba ko mu dem jaay ku baax la. mais léegi ñu constaté que gars yi mais léegi ba tey ngi si loolu waaw parce que itam euh, ma wax la benn affaire mooy li tax ma wax ko mooy mooy intérêt jullit yi xam nga kuy faju fooy dem hôpital am de booy faj sa yaram hôpital ngay dem. sooy faj sa diine jàkk ngay dem gis nga yàlla bi muy tudd yonent bi muy gàtt muy jëm euh, ci kaw mu war a jëli julli daf ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa jàkka la tudd dana jàkka màkka la dépare gaare ji jàkk Jérusalem muy baytil maqdis tuddul màkka tuddul dëkk yi jàkka la wax na moom yàlla yi ni jàkka am comme néeg ti jàkka li tax mu am solo dafa sell xam nga sa kër am na wanag sa sa douche intérieure tey léeg-léeg nga génne ci douche bi su mi sa carax ci bunt bi am na déet walla déet léeg-léeg yenn sobe mën na la dal sa doom mën na saw ah néeg néeg laabul kër laabul waaye jàkk ko fa ñemee yóbbu sa doom di ko fa tër moo tax yàlla ne jàkk maa ko moom soo jaaxlee nag ti nga feebar docteur bi wax la fu clinique ne kiy faj dangay dem clinique ba mu faj la ñun suñu clinique mooy jàkk suñu jaaxlee alhamdulilah jàkk yi tëjatuñ leen parce que ñëpp a ngi noddu di julli c'est bien baax na nañ leen bàyyi ñu noddu di julli te ñaan leen nag ñu ñaan leen bu ñu jullee te rek ñu lal kaamil jàng mu jeex ñu jàng xarnu bi yéene ci rek adduna bi yëpp feebar waxuma feebaru corona déedéet nañ ci yéene bépp xeetu feebar bu yàlla wàcc mu yégal ko bépp ko feebar yàlla wéral la nit du ñaan lenn ndax cancer a ngi fi de waa xam nga ni fi la ko corona fekk am déet sida mu ngi fi am déet ulcère a ngi fi diabète a ngi fi goitre a ngi fi feebar yooyu yëpp corona bi mu ñëwee moo ñoo ko teel ndax ñoo fi dëkk ak moom nañu ñaan corona yooru ànd ak ñooñu ñëpp dem ñëpp wér looloo ma tax bul ñaan leen ñaan kenn du ko xatal kon man sama décision sama position ba léegi mooy li yàlla def bàyyi jàkk yi nit ñi julli man du ma ci xam nga koy wax di dellu gaaw xam nga kan la mooy ki dul xalaat yaa ma wax loo mën naa dellu ginnaaw yaa ma yóbbante wax mën naa dellu ginnaaw waaye ki xalaat wax dafa déggoog bopp ti li ma wax aayul jàkk moom mënul ñàkk ginnaaw ku jaaxle dem hôpital waaye waaye ku jaaxle demal ci jàkk ji nag bu dee jaamu yàlla soo soxlaa yàlla demal jàkk ji boo soxlaa médecin demal hôpital nañu boole faju ak ñaan ndax yàlla may ñu jàmm